mbokk yi gis ngeen ko noonu euh, kilifa yaa ngi noonu sëñ Habib bu moom sëñ Fall gis ngeen ko ñu ngi ñu ngi réception bi moom mi nga xam ne moom mooy jiital kanam ànd ak Baara moom sëñ Cheikh Baara Kouradio waaye ànd ak euh, Jadi waa jaar pakai Mbacke Balla Mbacke Mbacke Balla kay alhamdulilah yaa bëri tey sëñ Fallou moom sëñ Baara Kuraja waaw Mbacke Rajo rek kon gis ngeen ko nii kon ñu ànd rek wan leen njaboot ak sëñ Baara Kuraja bi nga ñoo ñëw fii ci Sam mi ngi ko mu ak nanu defal fii ngeen ko nii ay jii képp koo xamante ne bii forage bi daanaka yóbbu ndox balaa mat ñaari waxtu dina fa yegg loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci sant Serigne Touba waaye di ci sant képp koo xamante ne bi membre Touba ca kanam nga moo xam collecteur nga wala moo xam noo mën a yëngoo ci Touba ca kanam rek tey jii 1000 francs yi ñu doon joxe weer wu nekk tey jii saafara na loo xamante ni bii képp ku ci daa joxe sa addiya yi woowa da ca jot kon mbokk yi mi ngi nii forage F6 pare na buñ fi jógee nag dem ci f ngir mën a matale nag lépp loo xamante ne bii euh, euh, ab liggéey la bu Touba ci kam engagé ngir Touba képp ku fi nekk mën a am ndox ndax sëriñ bi moo ko ñaanoon moo ne moon wa maskani salli minal fujjaari wam nun alal ahli bi ma in jaari kon ñaan googu suñu boroom nangul na ko ko moo tax bi ndox mi amee jafe-jafe Touba ca kanam jóg dégager lu ëpp juróom fukki million wala lu ko ëpp ngir saafara ko te loolu nag du xaalisu kenn xaalisu ba taali bii la euh, kon nañ gën a booloo ba lépp loo xamante ni bi luy jëmee Touba ca kanam la ñu def ci lu di gërëm di ànd ak seen mbokk seen xarit Mouride Mbaye ci yaatal bi nga xamante ni bi bëgg nañ fu waay nekkoon amoon jafe-jafe wala nga tiit wala nga yaakaar ne am nga mbokk mu ne tuubaa am jafe-jafe ndox suñu borom indi na saafara jërë ngeen jëf